asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit di ñu safoo si 313 digital le site qui des informations fiables net ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax dina wax ne leen dal leen ak jàmm ci lu gën a fës dañ koy daal di door rek ak Moustapha Diakhaté moom naka daal dinay ñëw daal dina yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci bi nga xam ne F24 bi nga xam ne opposition bi ñoo ko daal di taxawal ngir jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall rawatina ca wax troisième mandat bi nga xam ne jamono jamono ji moo daal di def euh, polémique moom nag Moustapha Diakhaté mi ngi wax que ne euh, F24 bii nii maanaam mouvement bi nga xam ne ñoom daal nañ koy tëral ak tamit euh, décision yi nga xam daal nañ koy jël ak la nga xam ne daal dinañ koy bëgg itam mi ngi wax que ne ay tentative malsaine lañ yoo xam ne bis bu ñu nangoo li mel que ñoom waa M24 ñu ngi wax waa F24 autant pour moi ñu ngi wax que ne ñoom luñ bëgg mooy que article L29 ak L30 ñu daal di koy euh, supprimer te moom Moustapha Diakhaté mi ngi wax que ni euh, bés bu ñu euh, supprimer li nga xam moom mooy article L29 ak L30 mooy wane que ni am na ci yu bëri yoo xam ne dañ koy daal di maanaam dañ koy daal di nangu lu mel ni que ni benn politicien wala kenn koo xam ne dafa bëgg aspirer nekk li nga xam ne moom mooy président maanaam ñi nga xam moom laay bëgg a lim bés bu ko defee dara duñ ko ci fekk muy viol escroquerie ak li nga xam ne moom mooy. abus de confiance loolu tamit ab politicien bu ko defee kon euh, day mel ni que ne euh, du am benn coow loo xam ne wala du am benn daan boo xam ne euh, dafay daal di tegu ci kawam ak li nga xam ne moom mooy trafic de stupéfiant ak li nga xam ne moom mooy détournement de fonds publics ak soustraction commis par les agents publics ak li nga xam ne moom mooy wàllum corruption ak trafic d'influence li nga xam moom mooy la contrefaçon la condamnation pour diffamation vol assassinat mu nekk ay mbir yoo xam ne kon nee na bés bu ñu euh, supprimer li euh, nga xam ne jot naa ko lim dootul empêcher euh, li nga xam moom mooy candidat bi ngir mu doon candidat ci ay élection kon nag nekk na mbir moo xam ne moo tax mu ne nag mouvement bi di M24 mën naa ne tentative malsaine lañ ndax yile yile article bés buñ ko supprimer mën naa ne yu bëri dinañ ko nangu moom nag ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diakhaté moo daal xam li li bu ñu jugee ci ci loolu tamit dañuy daal di dem feneen gis nañ nag avocat Ousmane Sonko yi dañoo am euh, benn méthode boo xam ne jamono ji euh, dañ ko daal di adopté bu baax a baax baax a baax ba gis nañ sax ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko tamit daf cee daal di daf leen cee fekk si bu baax nag gis nañ ne euh, procès bii nii procès en appel bii ni pal set bi gis nañ Ousmane Sonko waxu ci benn yoon ginnaaw tamit bañ joxewee li nga xam ne moom mooy maanaam verdict bi que ne amande nañ ko li nga xam ne moom mooy millions dommages et ak tamit euh, deux mois de prison euh, avec sursis bañ ko condamné ci li ni mel gisuñu Ousmane Sonko benn yoon euh, mu daal di addu daal di ci jëm mu nekk silence boo xam ne nag dafa jaaxal ñu bëri mu nekk silence boo xam tamit xamewuñ ko woon Ousmane Sonko xamewuñ ko woon tamit ay avocat moo tax nekk na mbir moo xam ne jamono ji daal dinay jur li nga xam ne moom mooy polimique mais nag ñi ñi xamal que ne ci ginnaaw silence boobu noonu am na loo xam ne moom moo ci làqatu bu baax a baax maanaam benn stratégie la boo xam ne euh, ñoom dañ ko teg comme si euh, li nga xam ne moo nekk seen kanam euh, defu leen dara mu nekk stratégie boo xam ne jàpp nañ ne jamono ji mi ngi dox bu baax a baax a baax ndax camp bi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool jamono ji tamit dañoo daal di jaaxle parce que nga jàkkaarloog sa adversaire muy def te gisul muy def te waxoo benn loolu tamit dafay daal di ja dafay daal di jaaxal bu baax a baax a baax comme ni muy jaaxalee askanu Sénégal waaye nag eh, gis nañ kenn ci eh, avocat wu Ousmane Sonko yi di wuyoo si turu ki nga xam ne moom mooy maître Ousseynou Ngom ginnaaw nag bañ ko laajee eh, ci li nga xam ne moom mooy silence Ousmane Sonko ak ay avocat am lañ xam xamle mooy que benn stratégie la boo xam ne ñoom dañ koo daal di teg ne duñu wax benn yoon ci li nga xam ne moom mooy renvoi wu procès bii nii kon comme ni mu ko waxee sànq nekk na benn daal benn stratégie boo xam ne jamono ji euh, ñoom daal dinañ koy adopté bu baax a baax a baax te jamono ji euh, mu ngi def effet euh, buñ ko waxee quoi qu'on puisse dire buñ jógee ci loolu itamit dañuy daal di dem feneen Euh, gis nañ tamit ki nga xam ne euh, moom mooy jomma euh, Diomaye fay nekk secretaire général du parti Pastef les Patriotes moom nag ni ki vendredi lañ ko daal di teg loxo foofu noonu ca buntu bërëbu liggéeykaay moom nag Bassirou Diomaye Faye ndiki démb lañ ko daal di déféré au parquet ndiki tey itamit nag gis nañ mu daal di jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy juge bi lañ ko présenté juge mu jàkkaarloog moom moom nag Bassirou Diomaye Diomaye Faye daal dinay uh, wax que ne lépp loo xam ne maanaam texte bi nga xam ne moo waral uh, bi la jàpp ne texte boo xam ne moom Bassirou Diomaye Faye dañoo gis ne uh, daf cee daal di jàll baat ay magistrat loolu nag daal di leen di metti bu baax a baax a baax waa dikk daal di koy dem jëli ginnaaw nag ba jàkkaarloo yeeg ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi moom Bassirou Diomaye Faye daal dinay xamle ne texte bi lépp loo xam ne wax nañ ko ci rek moom moo ko bind te accepté na ko bu baax a baax reconnaître na itamit li nga xam ne moom mooy ay bindam waaye lenn lu mënta reconnaître mooy euh, diffamation bi nga nga xam ne daal dinañ koy teg ne ko yow da ngaa daal di euh, diffamer ay euh, magistrat mu nekk loolu daal laa xam ne lool daal lañ xam ne moom Bassirou Diomaye Faye daal dina koy bañ bu baax a baax ak li nga xam ne moom mooy les infractions de diffusion de fausses nouvelles ak outrage à magistrat loolu nag nanguwu ko itamit mu nekk ay tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ay ndoddam teg nañ ko ci ndoddam ne moom Bassirou Diomaye Faye daal dina koy dàqal bu baax a baax moom tamit daal dinay défendre rejoindre eh, ki nga xam ne moom mooy eh, leaderam di Ousmane Sonko ndax mi ngi wax que ne mi ngi dénoncer violation yi nga xam ne ñu doon ko def le leader de Pastef Ousmane Sonko waaye itamit eh, mi ngi xamle que ne am na ci ñenn magistra yoo xam ne lenn rek lañ bëgg mooy que jébbal Ousmane Sonko ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall moom Bassirou Diomaye Faye tamit daal dina ya xam ne li ni mel leneen tamit li nga xam ne moom Bassirou Diomaye Faye daal dina koy wax que ne nee nag Euh, ñoo daal di euh, mel euh, nenn ni am na ci ñenn ñoo xam ne baax nañ lool te tamit ñu ngi def seen liggéey comme ni mu waree moom nag Bassirou Diomaye fay moo daal di xamle li ni mel waaye tamit di wax que ne bi nga xam ne def nañ ko ko loolu arrestation arbitraire la te moom jàpp ne ne bokk na ci otage yu nga xam ne président Macky Sall maanaam otage politique wala détenu politique yi xam ne dañu jàpp uniquement rek ndax politique daal di tax moom nag Bassirou Diomaye Faye nee na

bi mais nag ndiki tey nag am na ay journaux yi nga xam ne am na ay information yi nga xam ne un peu partout ñu ngi koy jot ñu ñi xamal que ne euh, moom euh, Thioro Mandela lu waral ñu daal di koy convoqué ca mbirum euh, toppukaay ca la daal di bokk nag gis nañ ne fan yi at mi maanaam groupe toppukaay boobu lee at mi ñu mm-hmm. ngi dee ñu ngi jaabante foofu noonu ca cybercriminalité ndax plainte yi nga xam ne ñoom daal nañ koy jot ku ne xam ne ne toppukaay dañuy dugg ci vie nit ki di xool li nga xam mooy vie privée am di koy génnee euh, tas ko ci réseaux sociaux yi wala ñu koy waxtaanee seen boobu les groupe daal di koy dippee topp kaa euh, ñu ngi wax que ne coro euh, coro mandala yi loolu moo daal di lii ak jàppam waaye nañ leen ko toppal bu baax a baax a baax ba xam bii les information lu wér lam déet buñ jógee foofu i tamit dañuy daal di dem ci ki nga xam ne dañuy daal di dem foofu noonu ca Ngor ñu ngi xamal que ni am na am na ay affrontement yi nga xam ne daal nañ ko fay euh, nemmeeku bu baax a baax ndiki euh, te ci euh, suba li ko waral nag du lenn lu dul ci booy dugg foofu noonu ca Ngor am na benn parking du village artisanal de Ngor dañoo gis ne takk der yi dañ fa bëggoon maanaam dañ fa bëggoon samp li nga xam ne moom mooy ab brigade jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk foofu noonu ca Ngor nag daal di bañ li ni mel ne loolu du fi mës a amee boobu nag buñ xool buñ ko xayma ñëwee mi ngi toll ci uh, li nga xam ne moom mooy 6000 uh, uh, mètres carrés ndaw ñi nag ñu ngi xamal que ni amoon nañ ca beneen projet bu bokkul ak li nga xam ne moom mooy brigade ca yooyu yi nga xam ne amuloon nañ ko nag mooy établissement maanaam bëggoon nañ fa def ab école ab lycée lañ fa bëggoon a def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bëggoon nañ ko faa amal ngir ndaw ñi bëgg ngir ndaw ñi mën faa dem liggéey maanaam loolu moo nekkoon mbébatu bile terrain Euh, ñu gis ne nag ndiki tey ñoom dañoo daal di ñëw euh, ne li nga xam ne moom mooy euh, brigade lañ fa bëgg a def waa Ngor nag daal di taxaw jóg ne loolu di fi amee affrontement yi nag daal di door ba nii may wax ak yéen nii sax affrontement yaa ngay continuer xale yi ak force de l'ordre yi ña ngay sànnante lacrymogène yi ni tamit ma ngay daal di jëpp mu nekk tamit mbir moo xam ne dafay firndeel que ne réew mi comme ni niñ koy waxee à chaque fois rek yaram bu màgget la foo laa ginnaaw ba Cambérène euh, jëlee seen wàll euh, deux jours yooyu looy euh, ren bii nag waa Ngor ñoo daal di amee li nga xam ne moom mooy journée bi ndax foofu noonu affrontement yi tàng na lool lool kon nag fi ñu daal di wàccewee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndiki ci kanam ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte di abonné si 313 digital